di la bégg tey nga dajeeg taxawal bis bu rëy muy diggante Reug Reug ak kii ñu naan Gouye Gui la waaw maa ngi nuyu di nuyu sénégalais yëpp di nuyu monde làmb waaw di leen wax ne Gouye Gui Reug Reug Sénégal Entertainment Group moo ko taxawal ñu war ko def le 20 février fii ci arène nationale incha allah soob yàlla

moo tax donc moment bobu légui passé nañ ko ñu ngi ci étape préparation moment bi ñu ci étape communication donc ci lañ nek di def promotion làmb ji té événement yi ci jot am yéen ñëpp gis ngeen ko donc amna yenen événement yo xamné aussi des na ba paré ci combat bi dañoo wàññi combat préliminaire parce que dañu bëgg combat bi téla a jeex bëgg nañ au plus tard 19h30 ñu siffler grand combat ñëpp dem parce que ñu bëri dañuy déplorer que ne làmb dafay guddee trop wax aussi problème insécurité beneen bi mooy peut-être am na ñoo xam ne dañuy organiser di def pay-per-view c'est normal peut-être ñoom seen stratégie noonu la ñun dañoo jël combat bi tuddee ko pour Futurs Médias waxtaan ak ñoom ñoom ñu jënd ñoom ñu jënd droit yi may ko population bi moo tax aussi jour boobu combat bi du nekk pay-per-view mais en direct lay doon incha allah rabi ci télé liñ bëggoon xam mooy euh, maanaam soit bi ngeen am ba taxawal diggante Reug Reug ak Gouye Gui combat ngeen taxawal ko noonu def ba teg combat boobu. en fait au début Reug Reug Sa Thiès moo nekkoon suñu plan après bi ñu waxtaanee Reug Reug d' accord ak moom waxtaan ak Sa Thiès d' wuñu quoi jubóowuñu après ñu contacter guy mhm. gi. d'accord gi d' accord ak Reug après ñu commencé discuter ci walu cachet xawon na jël touti temps sax mais à la fin jubóo nañ. Mhm. donc ñu gis né Reug Reug dem champion ba roi ci lutte traditionnel. donc commencé dugg ci biir dóor bi am ay jéego Yim ci def en même temps aussi il y a l'international parce que disney nañ doit faire dafay génn ci biti di def ay combat MMA di ñëwaat donc l'homme moom moo tax suñu choix nekk ci règle. donc actuellement je na ay preuve am ci lutte simple ba pare donc nek ci bëre d'or bi def ay jéego donc on sait que c'est un bon choix côté mais beneen côté aussi mooy côté international parce que déjà moom combat bi am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jóge États-Unis ñëw pour seetaan combat bi uniquement moom. Mhm. guy gi gis nga ko moom lay wax ne dafa mën yàqu noos parce que xale yi nekk na yëpp dafa leen di freiné. benn ñaar moom dafa bëgg dugg ci cercle VIP yi. et pour cela peut-être ci combat bi. Mhm. kenn du a bañ mhm. tamit loolu la bëgg. loolu moo tax on dit que c'est le meilleur la saison. ban idée ngeen bi dañ ko def pay per te ñu ngi dégg ñenn ñu ne pay-per-view bokk na ci li yàq làmb moo tax a jàppale nga xam te ni ñu ngi dund làmb day xaar bis boobu. man nag du ma ne pay-per-view day yàq làmb parce que xam nga ki organiser làmbam. Mhm. moo xam lan la ci def ak nan la mën a def pour fexe lim ci investir mu dellu si waat. am na ñoo xam ne pay-per-view na leen am na ñoo xam ne pay-per-view wu leen. Mhm. donc ñun heureusement ñun ñi ñu tuddee làmb ji waxtaan nañ ak ñun ba jënd droit yi. Mhm. moo tax ñu mën ko jël def ko en direct pour que population bi yëpp mën ko seetal mais ki nga xam ne peuple per moo ko arrangé donc moom pay view lay def peut pour moom xaalisam mën a dellusiwaat. Uh-huh. peut-être ñun am na yeneen moyens yoo xam ne mun nañ ko trouver. Uh-huh. def làmb ji en direct te du tee liñ ci bëgg incha allahu rabi dinañ ko ci am. donc daal euh, yaa ngi euh, rejoindre l'avis de certains promoteurs euh, yuy wax ni pour ñu pay view bañ a amati il faut que sponsor yu am doole comme yenn yenn ñu yore pour ne pas citer leur nom téléphone yi ñëw rejoindre làmb ji dafa soxla sponsor dafa soxla partenaire sax en général mais pour loolu am aussi. parce que l'âme ji produit mais mais sponsor wala partenaire bi ñëw day fekk produit bi muy ñëw mu arrangé ko mais tey boo déggee ñu de la làmb ji dafa bëri violence l'âme ji organisé wul làmb ji dafa bëri de làmb ji après nous nous ñu donc c'est à nous de revoir d'abord nan la faire war a organiser ko un bon produit vendable je te donne juste un exemple tey canal bu ñëwee pour jënd l'âme. ji xam nga lu mu lay ban heure lay commence à ban heure lay jeex mais pour nous, ko c'est tout un problème. Mm-hmm. d'accord donc euh, on tire vers ça. d'accord léegi aussi euh, ci côté violence nous gis ni que certes euh, des fois l'homme ñu tëgg ko mu am violence ak yooyu mais ba tey yenn émeute yi nga xamante ne nawetaan indi na ko. ba léegi gisuñu ci lamb léegi est-ce que tamit affaire violence ce n'est pas juste un prétexte pour certains Euh, pour euh, du prétexte mais d'habitude violence bi fi ñu koy gën a gis c'est pas les acteurs mais c'est ce qui tourne autour ma jox benn exemple fii lamb am na fi amateurs yeeg mbër yeeg yëpp nekk ci biir amul xulo amul xeex amul dara mais alors que ci biti am na ñoo xam ne dañuy tëb sàcc moto jàmbur wala agressé nit ci biti xam nga ñooñu bokkuñ ci lamb ci mm-hmm. donc loolu moo tax. léegi nag ñi fi nekk nekk acteurs yi ñoom ñoo war a xool ban stratégie la ñu war a jël pour jël loolu seppi ko dindi ko carrément te ñun loolu loolu la ñu bëgg indi moo tax pour wane ne mën nañ tëgg làmb du am problème du am histoire du am violence nit ñi ñëw seetaan teel a ñibbi seen kër dem toog ci jàmm ak salaam incha allah te le vin bu soobee yàlla nañ ko gis. Maaw dañoo gis euh, keroog bi ñuy def face à face bi nga woo presse en ligne bi yëpp lan nga prévoir pour liggéey ak presse en ligne bi. non xam nga làmb ji dama naan ñëpp am nañ ci wàll. mais il faut juste une organisation parce que l'Auguste organisation qui peut xool et que organiser combat ça fait des années nekk dernier moment mu donc voilà, ci organisation qui presse en ligne une presse écrite des chaîne de télé parce que nous, en fait defuñu pour nous nit pour nous parce que làmb ku ci nekk am na ci wàll. il faut juste ñu xool nu ñu organiser ak presse en ligne bi ñi nga xam ne war nañ leen accrédité ñëpp incha allahu rabi lañ leen accrédité ñu ñëw couvrir dem yóbbu seen rédaction amul problème. yenn surprise la ñu xaar ci journée bi pour ah, surprise moom mooy ci jour bi nga koy gis. Hmm.